asalaamaaleykum mbooloo mi yaakaar na ne weddi moom gis bokk ci pour seet teeru bi ni mu xate ba tax ne mënut a teeru mbooloo mi bëggoon ñëw yépp te may ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo mënut a egsi Euh, di leen masawu njëkk euh, di leen ñaan tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biti ak ñi nekk seen kër yi kë volonté bi ñu amoon ak bëgg-bëgg bi ñu amoon ak pas-pas bi ñu amoon bëggoon na fas yéene ñëw teew ak ñun ci bis bi te yàlla dogalu ko ñu leen di ñaan bu bés ba le 17 novembre ñu jóg. am jot bi yàlla may leen tal may leen fekkee ñu dem ci urne yi sànnil ñu seen carte ñu dem assemblée indi fi assemblée bu bees tabax Sénégal bu bees li ma wax léegi ci jongante yi présidentielles yi weesu dama amoon yéene bokk ci ñu def lépp pour sunuy moyen waxtaan ak suñuy mbokk suñuy xarit suñu am di jàmm waane ñi fi jóge tegal ñu ay ndëgg sërëx yoo xam ne teguñ ko fenn daal di jël écarté ñu mais it ñu jàpp ne xëy na loolu la suñu borom dogal ñuy gëm ko nangu dogalu borom bi par yàlla def ñu tas assemblée bi war a dëgmal ci élection yu bees mais ma bëgg a xamal mbooloo mi ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun di liggéey que assemblée nationale bi buñ ko xeeb assemblée nationale bi mën naa wax ne mooy deuxième tour élection présidentielle ñu jàppee ko noonu gëmee ko noonu te fas yéene te demee noonu ñu fexe ba bu bis ba ñu jox ñu majorité à l'assemblée nationale ñu won gaa yi ne leen mënuñu liggéey nit wax nañ ne liggéey da koy jàng waane da ci ciy am expérience maa ngi dégg ñu bëri di wax ne dañuy créer emploi dañuy def lii dañuy def laa ndaw yaa ngi chômer waane boo leen bëggee xool wala ngeen gis kuy champion ci créer emploi mi ngi nii ci seen biir taxaw loolu laa gëm te di ko bantu di ko wax saay su nekk ah, may seedeel mbooloo mi ne man ba ma amee fukki at ak benn fukki at ak benn laa wax nekk xale bu ndaw laa xalaat doon tëdd saa su ma tëddee guddi bu nit ñi di nelaw man damay toog di gént di xalaat di xalaat ci sama ëllëg fan laa bëgg a dem lan laa bëgg a doon te boobu fukki at ak benn kese laa am daan naa toog ñaar ñaari waxtu di xalaat sama ëllëg nan laay def ba yegg fi ma bëgg a jëm ma mës a am benn ambition mooy ambition ban ambition nekk multi milliardaire moo wax ko nëbbu ma ko loolu moo mës nekk sama mébét loolu laa mës a saay su ma tëddee moom laay xalaat mu nekk sama objectif mu am lu bari lu mu laaj ay sacrifice yu dul jeex ut ay référence pour xam nan ngay def ci pour yegg ci yoon boobu ma ànd ci ak dàll ak yar ak tamit euh, gestu jàng lu boroom xam-xam ba grec ba waxoon muy Socrate muy tudd ko ci grec muy ñooti Séoton loolu sunu boroom xam-xam yi sunu maam yu tedd yi sunu wasila la ki ñu yaakaar àdduna ak alaxira muy Cheikh Ahmadou Bamba wax ko ci benn bataaxal bu mu yónnee woon euh, joxoon ko sëriñ Fallu Mbakke sunu sëriñ ak sëriñ Mamadou Moustapha xamal leen ne ndaw day xam boppam kàddu yooyu ba mu tàbbee sama nopp laa ko jàpp moo tax ngeen gis ma ci melokaan bu mel nii ma ànd ak yar ànd ak dal ba pare gëstu man maay kan gëstu fu ma jóge xam maay kan xam lu ma bëgg xam lu ma mën loolu nag moo tax ba lu bari ma jombale ko sama bopp ñuy wax ñëpp ci man saa mu xëyee nekk ci sama der bi di wax lu nekk loo xam ne dara du ci dëgg dara man képp ku ma xam xam ma ci liggéey ak jël li ma yàlla jox ko wërsëg ma ànd ak kook samay njaboot ànd kook samay mbokk ànd ko ñi ma yàlla booleel moo tax duma ci boole ñàkk fayda du ma kenn aussi du ma ci yàpp lépp lu may def fulla ak fayda laa koy booleel ma am ambition boo xam ne moo doon li ma leen wax léegi créer emploi mais créer emploi du rek ci Sénégal ba may mébét pour jóg di liggéey di tabaxal sam bopp bëgguma woon yem ci Sénégal dama bëggoon tekk ci Sénégal mais du yem ma tekki bitim réew te loolu yàlla sunu boroom defal nañu ko ba nga xamante ne tey macha allah ñi ngi employé ay sénégalais mais aussi ñi ngi employé vingt neuf différentes nationalités ñaar fukk ak juróom-ñeent xeet yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi di ay tubaab di ay xeet yu bari ci Europe ci Amérique ci Asie ak ci Moyen-Orient may wax suñu mbokk jullit yi ne emploi saoudien sax Arabie Saoudi saoudien am naa ci ñaar ñu may xëyal di ma gontal te pourtant nag Sénégal gii lañ jó jóge fii lañ bàyyeekoo fii lañ jàngee jàng bi aussi yàlla suturaal ñu defal ñu tawféex bien que ay jullit lañ bokk ci tarixa sama maam aussi jaxasoo woon ak tarixa yépp mbokkoo ak tiijaan yi ñu samay mbokki deret ma xam loolu gëm ko moo tax lu ñu def ma bokk ci dugal ci sama alal lu ñu am ma ñëw ànd ak ñoom di ko def ci tarixa yépp loolu tax li ma gëm muy lii anglais yi di wax give back to your community bu la yàlla dimbalee ba nga tekki danga nga war a gëstu sa askan loolu ci laa nekk tey ci lay nekk suba ci lay nekk gannaaw ëllëg loolu laa gëm mooy sama ADN man képp ku may seet ci social nga may fekk ci social nga may fekk ma bëgg aussi ndaje mi ñu am muy coalition bi ñu am di ànd beesal Sénégal ñu rassembler le maximum de personne nit ñi nga xamante ne ñoom seen yitte yépp mooy def social loolu laay ñaan loolu laay woote que ñëpp fédéré ci loolu indi ñëpp ñu bokk xool ñi nga xamante ne social kese lañuy dox moo leen intéressé ñu xëcc leen ci suñu coalition ànd ak ñoom ba li ñàkk bi am Sénégal ñu dindi ko fi. li may wax nag moom mooy distribuer de la richesse maanaam loo am te yàlla seddale ko nga séddoo ko sa askan loolu ci laa nekk ba benn diir ah nit ñi ne ma nag ah Abdoulaye Sylla fi mu toll nii réew mi jaaxle nañ jaaxle nañ te fi ñu jëm ah xamuñu ko ma jóge woon fii en 2020 laa fi jóge tekk ay tolof tolof ak ay ndëgg sërëx yu nga xamante ne ñu ngi ko doon tegal ci sama liggéey ci chef d'entreprise boo xam ne tu as en emplois en 2020 nga nekk première entreprise de BTP du Sénégal avec un chiffre d'affaires de cinquante 52 milliards un carnet de commande de trois cent cinquante milliards yàlla dénk la ko ngay xale nga koy doxal ay nit jóg ne lii xale bi waru ko def nañ ko nañ ko faagaagal nañ nangu ay marché nañ ko toroxal ba loolu moo war ci sama bëgg jàmm ci sama bëgg Sénégal gu dal ma jël samay bagaas comme man am naa feneen am naa kër New York boo xam ne moom foofu kenn du ko fa fekk kenn du ma fa fekk di ko toj ndax bi ñu tojee sama kër sali il fallait que ma génn dëkk bi ndax amoo fu ma dëkk ma euh, dem New ndax man maa fi nekk nekk ma sama njaboot ndax liggéey bi ma am au international damay dem ci dëkk yu bari du ma toog. booy xool sax Dubaay laa gën a dëkk ndax mooy sama résidence mais sama njaboot ñi ngi New York mais loolu lépp liggéey bi moo ko waral ndax li ma doon ñaan yàlla ñaan bi moo nangu ba mënutuma toog fii at il faut may génn bi ma génnee muy 2020 maa ngi fi ñëwaat en 2022 muy ñaari at yoo xam ne ak lu topp ñaari at yu manqué yoo xam ne sama societé daanaka dañ ko buggoon a tëj euh, ñii ci ci télé laay waxee ak rajo samay nit yi may liggéeyal xam nañ ne toog nañ diir boobu ñaar lu mot ñaari at liggéeyuñu waaye dama leen koo fay ba mu mot sëkk bi ma dellu li nga xamante ne moo desoon ci bor yi ndax dama xaalis bi ma fi bàyyi woon dañ ko fay ay salaire ba salaire yi jeex bi ma ñëwee lii desoon nga xam ne xaalis bi nekk fi woon dama jëlaat sama xaalis lu day si deux milliards six cent fayaat ko ay salaire loolu loolu nag moo kooku nag bu leen waxee ne mën na créer emploi dana créer emploi ngeen war ko gëm te fii senegal fi ñu toll ak ndaw yi fi ñu toll lenn rek moom moo ñu war moo ñun ñëpp ñu taxaw takku def tout ba jigéen ñi ndaw ñi mag ñi ñëpp ku ci nekk am loo def may wax ne créer emploi bu ñu ci kenn ndax bu ñu kenn ndax bu ñu kenn sonal bu ñu indil ay chiffres di ñu indil ay théories di ñu indil wii mais loolu jëmul fenn man dama pragmatique gëm lu concret ku leen wax ne ci état état mën na créer emploi da leen di wax lu ko neex état du créer emploi secteur privé national mooy créer emploi moo tax ma fas yéene bu ñu yàlla dénkee majorité ñu fexe ba défendre le secteur privé national fexe ba nga xamante ne li nga xamante ne moom laa jàng Chine jàng ko Singapour jàng ko Dubaï nga xam ne bi ñuy soog jóg ñoom dañoo dooleel seen secteur privé fexe ba cinquante pour cent ci li ñuy liggéey ñu jox ko seen secteur privé national loolu moo tax tey ñu si fi ñu yegsi loolu moo tax tey ñu am ay entreprise yoo xam ne dem nañ bay compétir au niveau international loolu nag laa bëggal Sénégal loolu laa bëggal chef d'entreprise yi nekk ci Sénégal ndax man soxoruma tolluwuma fu may nekk naan maa ngi siis nit wala maa ngi iñaane nit ndax yàlla dimbale na ma waane nag bu ñu yàlla dimbalee man lu ma gënaloon moo yàlla defal ñëpp jàmm yàlla defal ñëpp tawféex yàlla jox ñëpp koom-koom ndax boobu ci la réew mi di gën a neex bu ñëpp amee ci la réew mi di gën a neex wala boog bu ñëpp mënta am li ëpp ci mbooloo mi li ëpp ci askan wi ñu am mënal seen bopp di fajal seen bopp loolu mooy sama mébét ma ciy woo le secteur privé national di leen xamal ne yëg naa seen coono ndax coono yi ngeen di daj jànkonteel man moom lay jànkonteel y a une pression fiscale terrible nit ñi ñi ngi fay impo et wax nañ ñi ci tubaab trop d'impôt tue l'impôt nasaraan yi ñoo ko wax ci science la te ku dem gis ko ñu fas yéene nag suñu yàlla yóbbu assemblée ñu fexe ba impôt yi ñuy imposer chef d'entreprise yi ak jigéen ñi entrepreneur yi entrepreneurs yi ñu nekk ci pes bi napp bi agriculture bi ak des ak l'artisanat ak transport ak yeneen secteur ñu fexe ba jàppale leen fexe ba ñu am accès au financement comme ni ko femmes yi bëggee bu ñu amee accès au financement ñu encadrer leen à travers l' assemblée nationale jéem a voté ay loi yoo xam ne dana leen permettre encadrer leen ñu mën a développer seen activité ba mu mën a am koom-koom boo xam ne danañ ko mën a denc ci banque yi ndax tamit mbokk yi euh, baru Sénégal bi ma fi déggoon fan yi ñuy wax mais bor boobu waa bitim réew ñoo ñu ko lebal mais balaa mu doon neex sénégalais yi am jël seen xaalis dugal ko ci banque yi ba bu nguur gi soxlaa xaalis sénégalais yi lay leb loolu mooy réew mu bëgg a jëm ci développement donc ñu bàyyi naxaate yi bàyyi iñaan bi bàyyi teg bët bi Sénégal dafa mel ne ku nekk boo jógee yaa ngi xool yaa nga xool yi nekk sa plat li ci nekk yow yaa ngi xool li nekk ci plateau kële te loolu dara waralu ko dul ñàkk ñàkk googu nag mun nañ ko faj nuñ koy faje mooy ñu fexe ba sénégalais yi am accès au financement sénégalais yi di entreprendre sénégalais yi di créer seeni société di créer emploi ñoom ci seen bopp comme man mii ni ma ko defee man su ma ko defee xëy na junni ak junni ak junni junni sénégalais mën nañ lu ko ëpp dañ leen a joxul opportunité yi rek mais bu ñu leen ko joxee ñu gëm naa ne danañ ko def ndax man mosuma jël sama CV jox ko nit ne ko damay demander emploi te gëm naa ne sénégalais yi aussi ñi ëpp loolu lañ gëm dañoo bëgg entreprendre seen bopp bëgg leen di employé dañu bëgg yëngatul seen bopp amal seen bopp bi jëfal seen bopp loolu nag laa bëgg bu ñu demee assemblée nationale ñu fexe ba loolu ñu jëmmal ko dooleel ko jox leen le pouvoir d'achat pour que ñu mën a accéder au financement jàppale jigéen ñi jàppale ndaw yi jàppale mag ñi ba lépp lu ñu bëgg ci réew mi yàlla dimbali ñu ñu mën ci yegg ah fi mu toll nii nag am na leneen loo xam ne dañ naan balaa nga naan naam ne fa. mooy liggéey koom balaa nga koy am day fekk jàmm am day fekk jàmm am cohésion sociale bi nga xamante ne moo amoon Sénégal nga xam ne sunu maam yi sunu sunu sëriñ yu baax yi ñoo ko fi sampoon sunu président ancien premier président de la République du Sénégal mu ñuy wax Léopold Sédar Senghor ah bâtir un état tabax une nation ba nga xamante ne ñun ñëpp dañuy demlante di dikkalante nekk ay mbopp di kalante suñu biir loolu mi ngi bëgg a dem mi ngi bëgg a naxsaay ñu nekk ci fitna nekk ci ay détails loo xam ne du jëmale kenn fenn loolu nag laa bëgg à partir de cette élection ñu mettre un terme à ça tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne day dox ci démocratie du rek nit ki da nga ko contre boo xëyee convoqué ko bu subaa nga convoqué waat ko jiiñ ko nekk da ngaa yóbbu or boo xam ne moom bañ ko yóbbu moom nekkul ci dëkk bi nit koo xam ne nekkul ci dëkk bi nan lay jëlee avion naan ma ngay yóbbu or loolu xam ngeen ne munta nekk mbokk yi ñu tegal ci loolu dayul ñu tegal ma tuuma ne ma ku xam France nu mu mel ak restriction ya fa nekk ak li am maintenant sur le blanchiment nga xam ne ay règles yu strict la nga ne nit mën na jóg yëkkati deux millions d'euros dem di ko verser espèce ci compte dégg gi sax dafay jigéen dafay jéggi dayam loolu nit ku ko gis am expérience état buñ la joxee kayit googu da ko war a xotti sànni ko xam ne kayitu mbalit la waane defuñu ko pour yàq sama der tilimal ma dañ ma koo tuumaal waane nag man yàlla daf ma dimbale ba ah, sama sëriñ ah, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ah, Cheikh Ndiaye mi fi toog mat na ma seede ba ma fa demee doon yóbbu àddiya ndax guddi laa fa doon dem benn benn guddi Cheikh Ndiaye miy toog dafa wax ak moom di ñaawlu tuuma yi yi ñu teg sama der sëñ bi ne ma tuuma yooyu wax jooju yëkkati ko kese la lay jural te loolu laa gëm ma bëgg nag à partir du set ñu ñaan sénégalais yi ñu jël seeni carte sànnil ñu ko ba mbooloo mi ma àndal ñu dem assemblée tabax fa beneen genre député boo xam ne li ñuy def mooy saytu nguur gi doxal nguur gi teg ko ci dëgg ak jub ak yéwén ak yéene nit ñi ñu am parce loolu mooy sama combat li ma bëgg mooy nit ñi am ba mun a teral seeni i mbokk teral seen doom teral seeni i waajur tasaarew aussi def di social ah engagement boobu nag mooy sama engagement engagement la boo xam ne ay nit wax nañ ma mënoon na la ci bañ a fekk man leen déedéet parce que sénégalais laa comme ñëpp bu sama réew soxlaa dama war a jóg bàyyi lépp lu ma doon def ñëw toog xeex ànd ak ñoom ba yàlla def li gën loolu moo ñu dugal ci lii ñu bëgg nag et di leen ko ñaan encore di ko ñaan askanu Sénégal fi ñu jëm ñu xool suñu coalition bu baax xool li ñuy proposé te xam ne ñun duñ leen nax tollu ñu sax pour di naxaate dëgg lañuy wax dëgg lañ gëm politique di développement lañ gëm politique boo xam ne c'est dans l'action loolu lañ gëm ma terminer nag ci li gars yi di wax euh, dañoo bëgg a jubbanti jubbanti nag moom ah danga war a teg ci njub lépp loo xam ne da koy def nga xool ci yàlla ak yonent bi nga xool xam ne nguur day jeex nguur day jeex ku weddi laaj ko ñi ki fi ñu nekkoon te tey ñu dem feneen bàyyi ñoog réew mi ba ñeneen jël ko ñii ko jëlit nañ xalaat ne suba day jeex day génn ci seen loxo tàbb ci yeneen loxo ba lépp lu ñuy def ñu def ko ci dal def ko ci teey def ko ci teey te xam ne senegal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar te ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ loo fi def tey bu subaa di nga ko rëccu ndax bu subaa di nga toog wéet rëccu la nga defoon donc lu ñaaw xaju fi nañ ko jël sànni fële te jëm ci li nga xamante ne moom la askan wi bëgg askan wi soxla ko muy nan la ñuy def ba coono yi ba jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñu saafara ko dañu leen di wax ne ñu ñii de boo leen ñu dënkee seeni carte bu soobee yàlla ak yonent bi ak mag ñu baax ñi nga xamante ne ñooy suñu yaakaar fii ak fële danañ ko def ni ngeen ko bëggee tegal leen ko ci yoon yu baax ba nga xamante ne doo leen ci am lu leen metti doo leen ci am loo leen di rëccu ëllëg ma ñaanal nag que ñi nga xamante ne ñëw nañ fi yàlla yóbbu leen ci jàmm ci seeni njaboot buñ demee aussi moo dóor bi benn la wax ak njaboot yi wax ak mbokk yi que ñëpp moo dóor bi benn la nañ tànn coalition ànd besal Sénégal jërëjëf jërëjëf jërëjëf